patriote maa leen nuyu di leen ziar seen frère la Cheikh Anne sama vidéo bi nag yéen waa coalition ànd delloo réew mi ginnaaw bañ a fay lempo yéen yéen ko moom tey def ngeen seen conférence de presse sénégalais bu nekk nag war na xam lan mooy fay lempo ak ban problème la waa coalition ñàkk fay lempo réew mi delloo réew mi ginnaaw ban problème lañ am ak peuple bu Sénégal dama leen di expliquer nu cas bi demee ñoom dañoo yor ay liggéeykat maanaam ñi fay liggéeykat bu nekk weer bu nekk cinquante mille wala cent mille léegi nag ci cent yooyu noonu cinq mille bi dañ la koy dagg ne lii moo moo ko dama koy yóbbul état dama koy yóbbu impôt cinq mille yooyu noonu cinq mille cinq mille yooyu ñuy dagg liggéeykat bu nekk si seen bërëbu liggéeykaay moo xam muy rajo moo xam muy tele moo xam muy bërëbu liggéeykaay yëpp nga xam ne yow mi nga xam ne yaa ngi liggéey foofu yow yaay joxe cinq mille boobu pour mu dem si keesu état ñoom moom lañ dajale ba mu doon ay milliards ñu sàcc ko ñu leen koy laaj ne leen jox leen ñu ko ñu def ko si hôpital yi def ko si ndox mi def ko si euh, tali yi def ko si mbënn mi delloowaat ko askan bi def ko si dund bi ñoom ñu jël ko lekk ko ne duñ ko joxe di wër di def ay conférence de presse di jël di di di jabulise askan bi loolu mooy lémpo beneen bi mooy àll bi non Sénégal bëri na ñu nekk maire yi Sénégal yëpp dañuy encaisser lempo baykat yi ak sàmmkat yi ak nappkat yi tey lu mel ni commune bu Latmingué mu ngi nekk quatre-vingt-quatre villages village bu nekk at mu nekk chef de village bi day wër kër yëpp kër gu nekk bopp bu nekk par exemple nga déclarer sa kër nga ne sama kër am na dix personnes. 10 personnes yooyu francs Si bu nekk million 84 bu 84 vingt quatre villas, calculer leen quatre villages si vous bi 84 wax de fi ngeen ñuy ñun million 84 vingt 1 million 1 million ñu dajale loolu le maire bi dajale loolu yëpp dem maire chef de village bi dajale le maire par exemple maire bu Latmingué wala maire bu Koungheul wala maire bu a commune Sénégal maire euh, léegi maire bi dafa war a jël alal boobu dem yóbbu ko impôt et domaine ba pare am facture dem publier ko wala mu delluwaat si chef de village yi ne leen lémpo yi ma leen encaissé woon yóbbu naa ko l'impôt et domaine loolu amul impôt et domaine loolu amul de amul kenn ku mës a gis maire mu ñëw di leen leeral impôt yi muy encaissé si dëkk village yooyu noonu fan la alal boobu di dugg kon audit bi na gën a yaatu baykat yi xam leen ne yéen yi si àll bi xam leen ne li leen daan nappee naan leen bu ngeen fayul l'impôt du ñu leen jox du leen jox jiwu loolu yëpp lu si ëpp maire yi dañ ko daan lekk Bassirou Diomaye fay président premier ministre Ousmane Sonko def len audit si ñi nga xamanteni dañuy nan deretu askan bi na baykat yi ak kat yi nap kat yi lempo même tangal boko ko buñ la ko jaayé euh buñ la ko jaayé ñetti deureum deureum bi impôt la borom bitik bi da ko wara fay faw sénégalais bu nek xam lan moy lempo ak buñ ko fayé fan la wara a dugg l'impôt boobu nag la Ousmane Sonko ñëk wax bala mo wax pétrole ak gaz ne mun na réew mi buñ koy fayé comme niñ koy défé fi Amérique niñ koy défé France ak fépp man dëkk bi ma nekk ak ñi mel ni man chaque année état bu États-Unis fii dëkk bi ma nekk di New York dañ may indi lu ñuy wax income tax ne ma yow at mi li nga fi liggéey si xaalis si dëkk bi parce que dañoo fexe ba am benn benn numéro boo xam ne si lañ may notifié xam nañ lu may liggéey xam nañ lépp lu ma liggéey si xaalis xam nañ ko ba si la may dugal si banque yi ne ma yow at mii werse nga temps état bi liggéey nga temps si dëkk bi lii ngay fay bu nekkee ne nag yor naa samay tappaleeg am na na ñu koy def dem ne état am naa juróomi doom juróom benn doom sama yaay dafa feebar li may fay luyaas dafa fee dafa dafa seer ñu bind loolu yëpp état bi daal di xam ne yow mii néew ji doole nga état bi ne dama lay dolli yow dama lay delloo état ñëw joxaat la xaalis bu bari tegal la sa la nga doon fay pour dimbale la ko parce que yow amaana li nga wax tappale la wala wala dëgg la léegi état defaat enquête xool ba xam yow da ngay tappale bu nekkee yow li nga déclaré ne da nga ko yor si ay doom ak loolu ngay financé ay tappale la état nag daal la yóbbu kaso ba pare fayloo la duubul duubul duubul duubul lim la delloo woon loolu mooy njëriñu lempo kon ñii di def conférence de presse yor ay télévision xam leen ne ku dee si hôpital yi ku daan am doom si kaw seret yi yu dëkk yu amul yoon xam leen ne ñoom dañoo dañoo arnaqué alalu askan wi parce que seeni liggéeykat la ñuy encaissé ku ñu fay cent mille wala cinquante mille ñu jël si cinq mille xaalis boobu lañu nekk di dajale di si faj seen soxla di si politique di si def conférence de presse di si war seen i jeeg di si euh, nax xale jigéen yi ñii di jur di bañ ñii di def lu bon rek la ñuy def nag ñii def loolu duñ def lu baax mukk ñoo yàq réew mi ñoo fi ne dañuy ree conférence de presse yu dul jeex kon na sénégalais bu nekk xam lan mooy lémp te sénégalais bu nekk prêt di fay lémpo te fexe ba def ay audit si lémp yi di si leeral askan wi lii daal mooy seen problème ak président Diomaye président Diomaye président Ousmane Sonko ne leen lii nga xamante ni mooy lémp yi da ngeen ko encaissé si baykat yi xoola baykat nu mu sonnee si sàmmkat bi si nappkat bi nga xam ne bopp bu nekk 1000 francs ngeen di ko dajale di ko yóbbu si maire yi maire yooyu nañ ma wax impôt boobu fa ngeen koy dugal mu ne yow mi nga xam ne da ngaa yor télévision wala rajo wala ak loo mën ci doon lémpo yi nga doon enquête si nga xam ne say employé lañ nga xam ne nag boo ma boo fayee cinquante mille ne pour quatre cinq mille bi ne si président la jëm si askan wi la jëm Diomaye ne man moomu ma loolu ba di ko maye. léegi nag yow noo may yorelee di rëy làmmeñ di def conférence de presse yor sa télévision yor ay dof embauché leen si suba ba ngoon ñuy xëy di saaga ngeen yaakaar lu dana continuer du continuer de moo tax fan yi xaar leen li si kanam raw li bët yéen lu ngeen ñu lu ngeen yoré lay réew mi ray réew mi sur réew mi daan tek ay deal daan def mafia non ak loolu du jall ci président Ousmane Sonko président Diomaye ak loolu nak du jall ci askan bi te Diomaye loolu la comprendre du jall de dem len ngeen fay lempu yi ta bayyi wax ji kuy politique nga dem jël sa ala dem politique ko mais dagg ay liggéeykat kat yéen a nek ta ñak jom xam ngeen li lek la la deret mo tax xol leen seen bop yéen ñëpp di ngeen feñ ben par ben ku ci jubut jub jubal jubanti rek nak wala nga dem ci kasso bi ñaari rek mo meuna am nga jub di jubal ba pare di jubanti boo jubutoon nga ne si njub